am ni dëkk nañ fa yaa de ay cinquante ans cent donc man je suis né là-bas j'ai quarante sept ans donc ci waaxu caaroy yi donc ñu déplacé ñu. par gisement ah. mais fan la exactement fi ngeen fi ngeen dëkkee yéen. bon ñu ngi doon tout le long du tracé de dakaar à à à à à de Dakar à jam Diamniadio en passant par euh, Sébikotane pour deuxième phase bi quoi mais ñi dëkkoon foofu ak ñi nga xam ne tamit dëkkuñu ci côté raay bi mais ay pont pont yi ñuy defar donc euh, moo la moo leen laal donc ñoom ñëpp ils sont impactés par le projet TER. <laughs> ngeen di jambat boobu ba léegi démb ngeen dajeek directeur bu euh, directeur bu APIX lan moo évoluer ci seen i jàmbat tey jii nii. waaw yàlla dafa def euh, suñu jàmbat defe naa ne Sénégal yëpp xam nañ exactement li nga xam ni impact terre bi dund nañ ko parce que fi ñu jaar bëri na daal donc yàlla def euh, avant-hier mercredi 5 juin ñu tasanteeg euh, le directeur général de la l'APEX bu bees bi ñu koy nuyu au passage muy monsieur bàcc li donc vraiment mu recevoir ñu daf prise de contact ak ñun toog ñu waxtaan par rapport ak suñu situation Euh, Babacar yi nag du ka nga xam ni ku bees la ci affaire u terre bi parce que boo xoolee moom mi ngi doon liggéey APEX. Mhm. ci domaine terre bi sax d'ailleurs donc vraiment il a été bon euh, ci euh, mi ngi woon ci affaire yi doon liggéey ak gars yi foofu donc il est au courant de tout presque si suñu jàmbat et tout ça donc moo tax bañ toogee ak moom. jàmbat yi. jàmbat yi waa jàmbat yi nag dafa bëri parce que tamit dañu ne. Euh, projet buy déplacer ay personnes maanaam comme projet TER parce que autoroute à péage jaaroon na fi y a de cela ay dix ans quinze quinze ans donc euh, après aussitôt TER bi jaar te autoroute à ba muy jaar defe naa ni ñi ñi déggati foofu yëpp ci wax boobu ci autoroute à péage dañ leen recaser fële au niveau de la cité APEX dégg ngeen Sénégal ñëpp di ne cité APEX mooy cité bi ñu gën a aménagé si Sénégal donc non seulement. jox nañ leen ay kër fu ñu dëkk mais ensuite jox nañ leen euh, benn indemnisation pécuniaire ba nga xam ni vraiment dinañ mën a tabax ba dëkk convenablement mais ñun suñu problème mooy ñun bañ ñuy yëkkati donc état bi dafa ñëw proposer ñu ay barème yu dérisoire dix neuf mille deux cent le mètre carré ci fi ñu dëkk donc dix neuf mille deux cent le mètre carré ça veut dire que les cent cinquante mètres carrés ça fait deux millions un million deux millions huit cent defe na donc loolu mooy li nga xam ni bëggoon nañ ñu ko fay te xam ngeen ni ku dëkk Pikine wala nga dëkk Babacar yow Pikine nga dëkk nga dëkk Pikine wala nga dëkk Thiaroye Yeumbeul tout le long di tracé nga dëkk foofu ñu la cent cinquante mètres ñu ngi koy deux millions et quelques donc loolu xam nga c'est pas raisonnable ba pare nee ñu woon amuñu site de recasement maanaam fu ñu dugal donc xaalis bi dañ ñu ko doon joxee noonu rek ñu daal dem heureusement ñun ñu consulter en collectif bu buñ ko joxee ci ngay jënd terrain war ca tabax. waaw bu ñu la joxee loolu loolu nag ci ci ci ci ci ci kii bi la rek si surface bi. Ah, ci ci si loo xam ne da ngay tabax bi waaw bati bi bati bi day ñëw après. Ah. mais boo boo évaluer boo évaluer pour un terrain de cent cinquante mètres carrés. ça ne fait même pas neuf millions huit millions am na ñi nga xam ne cinq huit six millions lañ leen fay am na ñi nga xam ne huit millions lañ leen fay. ñi nga xam ni dañu nekkoon ay propriétaires ils sont devenus des locataires à cause de ce projet là donc loolu dañ ko dund parce que problème bi mooy ay mag ñoo dëkk foofu. ay ñu nga xam ne ñu jot a jël jot a jël tabax nañ ci am déet. am na am na ñu jël tabax am na ñu tabax àggul am na ñi nga xam ne ils sont devenus des ñu ci bëri ñi nga xam ne tey jii vraiment li ñu leen yor parce que tey mi ay concessions yu mag la ñëpp a jóg wala am na ñu des ñëpp a jóg ñëpp a jóg peut-être deuxième phase bi nañu wax deuxième phase bu. Euh, mooy jam ñaajo AIBD jam ñaajo AIBD. Hmm. te ñooñu sax coisiment ñu bëri jug nañ presque jug nañ. donc li si des mooy peut-être indemnisation yi des par rapport à foofu et tout ça mais ce qui est sûr mooy ni ñi nga xam ne dañu leen njëkkati muy première phase bi depuis 2016 ba léegi 2017 2018 ñu def la libération de de l'emprise ba nga xam ni tey jii le collectif à participer à la libération de cette emprise parce que nous nous sommes dit que c'est un projet de développement et que ce projet là mën na tax ñun bu ñu fi jógee suñu condition sax dana gën a améliorer waat. parce que des fois boo dee lire les manuels opérationnels de la banque mondiale le OP 4.12 wala SO2 de la BAD dañ lay wax en matière de réinstallation involontaire nag nga war a jëlee ay doomu aadama ak nag nga leen war a réinstaller donc mais malheureusement suñu ak ak suñu yelleef dañ ko salfaañee depuis le début ci commencement ba dañ commencé ci par euh, manque d'information donc beneen affaire bi mooy ci li nga xam ne tey jii moom nañ ñu proposer comme comme comme comme comme indemnisation ci li nga xam ni tey ñi aussi moom la PAP yi nga xam ni sur le plan xamatu dafa am ay étude impact environnemental ak sociale loolu yëpp respecté wuñ ci dara donc PAP yi ñu lu ñu dund yàlla xam na nit ay doomu aadama musuñu ko jund Sénégal parce que instant bi les conséquences son la parce que boo xoolee ci famille yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo déplacé par le projet ñu ci bëri mag ñu bëri dañu gaañu mag ñu bëri dañuy feebar mënatuñu bouger depuis 2017 ak ak léegi nga xam ni ñooñu gañe woon nañ seen vie mooy ni am nañ kër à Dakar non seulement loolu mais uuf seen njaboot parce que ay concession yu mag nañu yoroon yor seen njaboot yëpp mais projet ba mu ñëwee dafa tas njaboot yooyu non seulement tas leen am na ñi nga xam dañuy retourner dem sëy am na benn waaye bëri nañ quoi ñi nga xam dañuy dem retourner dem dëkk seen dëkk yi wala dem di njaboot yi tas am na ñu bëri ñi nga xam ni dañ doon jàng jàngatuñu. man j'ai vu des enfants yi nga xam ni euh, ay élèves nañu woon dañu mujjee bàyyi école ñi nga xam ni seen activité économique ñaata ngeen ñaata ngeen yéen ñi nga xam nous sommes nous sommes nous plus plus trois mille famille plus de deux cent cinquante mille personnes waaw déplacé par le projet jamais un ci ñetti junni yooyu déplacé autant de yooyu ñëpp jël nañ xaalis ñëpp presque quasiment jël nañ xaalis am mais xaalis yi tolloo am na ñu tabaxul am na ñu tabaxul am na ñu àggalewul am na ñi nga xam ne ils sont devenus des locataires. am na ñi nga xam ne gisatoo leen sax mooy xaalis ba jeex na. non jeex na tàkk ñu ci bëri seen xaalis dafa jeex tàkk. te vraiment leen tàggul leen ko lu dul état du Sénégal. léegi lu ngeen bëgg euh, dëggantaan. bon réparation bi ngeen wax nu ngeen bëggee mu demee. réparation bi ñu bëgg. mooy état bi daf ñu war a aménager ay kër. boo xoolee joxoon nañ ñu camp militaire de Thiaroye boo rombee camp ba ci diggante autoroute à péage bi ak hôpital bi espace boobu yëpp ñun ci ay veille élection nañ ñu doon naxee loolu naan ñu dinañ leen jox cas camp vert parce que recasement de proximité la ak Malika titre yaa ngi fii on nous a donné des notifications au camp militaire de Thiaroye et à Malika. ah bon notification yaa ngi nii on nous a donné des notifications. léegi ces notifications mais signé wu leen contrat bàyyi signé wu leen dara. non signé guñu dara woon boobu. mais lu bees mooy ñi dañuy joxaat beneen 40 hectares sur sur Lac Rose. donc les notifications sont là. donc ñu joxaan ñu 40 hectares sur l'agro ba nga xam ni xëy na boobu tamit gis nañ décret ak décret ak publication journal officiel ci 40 hectares boobu dañ ne woon dinañ ñu aménager loolu ci diiru une année une année mooy ni 2000 2021 à 2022 octobre 2021 octobre 2022 mu jeex mais à notre grande surprise dañu gis ni depuis que ñu commencé aménagement bi depuis lancement bi octobre 2021 jusqu'à présent affaire yi jeexagul donc la dernière fois qu'on a eu réunion avec le DG woo na ñi nga xam ne tey jii ñoo nekkoon des acteurs ñu nekk foofu ñoom ils ont que aménagement bi ils sont à xaw ma soixante et quelques pour cent voirie bi des na adduction d'eau def nañ ko aménagement kii bi def nañ ko euh, électricité et tout ça joxe seen seen chiffre mais problème bi mooy heure bi waroon na fekk nit ñi aménagement boobu jeex tàkk mu desoon benn 14 hectares ba nga xam ne aussi dañ ko waroon libérer donc 14 hectares yi ba léegi mënuñu fexe ba jël emprise boobu jox ko impacte yi soi-disant dafa dañu war a jàll en commission de conciliation te comment tu peux libérer autant de monde sur tout le long des tracés nga libérer ay kër toj leen et tout ça yow ci site bi nga war a réinstaller ces personnes là tu peux même pas libérer les 14 hectares soi-disant ay poulailler ñoo fa nekk donc sama benn xarit da naan même ay ginaar sax boo leen di déplacé da nga leen war a wutal ngunu ba pare doo leen jël déplacer leen mais tu peux pas déplacer des gens yi nga xam ni tey ay nit ñi nga xam ni ils ont gagné leur vie ñëw dëkk convenablement ak li nga xam ne moo leen lié ci seen terre nga déplacé leen salfaañe seen ak ak seen yelleef injustice munu wees loolu te loolu vraiment dañ koy déplorer nit ñi xam ko donc li xew ci impact terre bi mën nañ fi toog fii ba suba li ñu traversé ay péripéties kenn mënu ko nettali doomu aadama donc ñun lu ñu mën mooy ñu jéem a xool les autorités étatiques ñu jéem a xool nu ñuy régler suñu problème definitivement on passe à autre parce que tamit bu ñu xamee di wax sax ci ay euh, kii c'est parce que dañoo tooñ dañoo tooñ te les conséquences sont là. kenn mënu ko mesurer weesu tooñ bala que. waaw Euh, bu fekkee dañ leen ko war a jox te joxuñ leen ko mooy nguur gi fi jóge ñooñu la euh, waaw ba man ba noppi ñoom wëlbati ki séddoo suuf sépp ci ci ci réew mi waroon nañ leen cee compal aywa Georges euh, léegi surtout Thiaroye bi parce que attribution bi Mamour Diallo jamono jooju moo nekkoon directeur des impôts et domaines c'est du 12 juillet 2018 lu tax site boobu mënuñ leen finalement joxuñ leen ko Euh, impôt domaine la wala euh, APIX. waaw au passage damay euh, ñaanal Boun Abdallah Dionne donc yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf sedd si kawam parce que moom mën nañ amoon ay réunion temps yii mu ngi woon nekkoon premier ministre. vraiment c'est lui qui a moom moo kii woon ba ñu jox ñu camp bi avec les militaires dañoo refuser woon sax parce que camp bi ñëpp xam nañ ñi domaine militaire la woon. mais ci ginnaaw camp bi fi ñu sóoree para ci ginnaaw te ñu fay defee maraîchage bi fi ñu def marché bu bees bi. foofu lañ ñu ne woon dinañ ñu jox te président nee ñu woon dañu ko jox pour mu am recasement de proximité donc ba ñu commencé veille élection yi di commencé aménager jox ñu sax ay. élection yan la 2019 2019 élection présidentielle 2019 présidentielle 2019. gis na ces titres là gis na ku nekk am na sa notification. parce que lii rek mënoon poursuivre état en faux usage de faux. parce que tey tey liñ ñu jox noonu ça n'existe pas amul benn. Euh, continuité amul dara donc ñu jox ñu ko jox ñu Malika aussi donc bañ ñu joxee titre yi ba ñëpp commencé espérer donc ñu gis ni foofu amul benn évolution les gens souffrent ñu gën a di comme comprendre après rek ci lañ ñu door a jël jox ñu lu yàggul ci ay suñu kaas suñuy marché yi ñu fi daan def lépp lu ñu def menacé fii lu nekk ba mu mujjee gi ñu jox ñu ay euh, fële. au niveau de Lac Rose donc quand quand Thiaroye bi moom c' est mort. quand ci. non c' est pas parce que mm. à Lac quarante hectares. plus de deux mille impactés keroog bañ defee réunion rek ñoom évoqué nañ loolu loolu boo xoolee euh, des na am na ñu nga xam ni il risque de ne pas avoir. quarante hectares yooyu bu ngeen ko suddoo euh, ku ne ñaata lay am. ci terrain yi mille cinq cent vingt huit terrain moo fa war a génn. bu nekk ñaari cent cinquante cent cinquante mètres carrés. cent cinquante mètres carrés waaw plus les voiries les équipements et tout ça donc cent cinquante mètres carrés et les autres Rufisque ak ñeneen ak ñeneen donc ñu jox ñu Malika aussi vingt et un hectares yi ngay gis ni Malika. mooy le titre est là donc signé par aussi. Mamadou Ma Mamadou seen problème régléegul bu waa jam ñaajo ñëwee mu gën a compliqué. Ah, non ñoom ñoom am na fu ñu leen jox site de recasement. ñoom tamit keroog DG e recevoir nañ leen ñoom aussi. bañ leen recevoir que maa ngi leen di jox ñoom ñoom ñu ngi leen di jox fële eh, ginnaaw sébi xotaan lan lu xaw ma benn site bu nekk foofu ñu jox leen ci vraiment ñu ngi commencé aménager ba ki dem sax si réunion bi ñoom lañ njëkk recevoir après ñu wax leen ne d'ici le 30 août dinañ jeexal installation eau électricité bi ak tirage yi nga xam ne tey jii def nañ ko à deux reprises muy tirage titre de propriété yi léegi ñu war leen dolli laat ay kii te DG daal nee na dina fexe daal ba ñoom ñëpp ñu am seen titre de propriété ñu gaaw aménager ñoom ils ont constaté aussi depuis que nouveau nguur gi ñëw ba léegi gars yi ñu ngi accélérer seen travaux foofu mais ñun suñu travaux aussi dafa nekkoon au ralenti parce que problème bi mooy euh, dañuy ne la société Socabek moom mooy moom moo doon euh, aménager foofu mais à chaque fois dañu ne amuñu xaalis boo xoolee l'ex des de l'APEX euh, muy monsieur balde effectué ci. magistère benn paiement benn paiement te loolu c'est très grave mënoo dem. moom yàgg na fa yàgg googoom. ah waaw mais même même lu mu yàgg même bu doon deux mois deux mois la fa def c'est pour woon mu régler les problème parce que ñun à part site de recasement bi dañu nee nañ ñu jox ay titres titres yu formels des titres fonciers individuels donc wala des des des des titres fonciers individuels donc wax ni aussi nañ ñu jox suñu prime de vulnérabilité. la vulnérabilité était estimée à un million deux cent pour chaque PAP ak accompagnement social parce que ñun on a été à la commission de conciliation et de recensement ci période du euh, euh, conciliation yëpp pendant trois mois quatre mois man j'assistais les PAP pour ñu jaar en commission waxtaan ba juboo nga signé mm-hmm. ñu la tu droit à un million deux cent pour vulnérabilité un million cinq cent pour accompagnement social et un terrain de cent cinquante mètres carrés moo tax PAP bi bu ñu demee nag ba instant bi ñu bëgg ñu wax ni kii mooy am kii du am loolu ay frustration mais yan engagement est-ce que euh, DG OPIX bu bees bi jël ay engagement ci prime de vulnérabilité boobee ak li nga xamante ne moo di aménagement surtout euh, Lac ak yeneen yi nga xamante ne ñoom la ñu jox te mu am kayit gi koy te mujjee mujjee wuñ cee jot. waaw DG bu bees bi nag ñun wax dëgg yàlla. boo bëggee dañu dañu am espoir ci moom. parce que li tax ñu am espoir ci moom. keroog ba mu ñu recevoir non seulement nee na dafay jël engagement pour ñu traiter dossier yi gaaw pour site bi ñu gaaw ko finir mais ensuite dinañu jox suñu titre mu gaaw ñu ñu téye ku nekk sa titre. mais est que jox na leen délai parce que aussi. Euh, non liggéey itam te. il n'a pas donné de délai. Hmm. mais dañuy estimer ñoom ci seen nguur bu bees bi ku mel ni PM Ousmane Sonko il a avec nous ci suñu moment xeex yeeg yooyu il s'est déplacé pour venir au centre Zac Sirat ak ñun. def fa benn point de presse bi mag. ca caaro yi ak ca caaro yi. donc toog ak ñun wax ak ñun la nga xam ni tey jii ba léegi vidéo yaa ngi fii saxaw donc lépp lu mu ñu waxoon tey jii instant bi mi ngi taw fa moom non seulement war nañu recevoir mais président aussi war nañu recevoir au moins ñu wax suñu doléance parce que mm-hmm. amul benn priorité. yow tax yow personnellement lan mooy sa situation. waaw euh, tabax nga am tabaxoo. man tabax naa. waaw man tabax naa parce que man je suis fonctionnaire. mooy da dolli leb naa ay banque samay banque yëpp dama ko leb ba nga xam ni tey jii waxuma la dara mais li pesé sama sama kaw. kenn mënu ko hmm. xam ay hmm. charges yu dul jeex la. war a fay bor chaque weer banque bi chaque weer chaque weer dañuy war fay bor da dem ba benn instant man bu ma ko xoolee sam bopp rek dama xam ne nit ñi gën gën nañoo impacté yi dañu dee. Hmm. dee nañ perte on espère tout simplement que kilifa yu bees yi nañ leen te dinañ ci def saafara. waaw ñu ngi lay bu baax. Euh, Makoddu merci beaucoup donc di encore euh, renouveler suñu confiance au niveau des aides ci engagement yi mu jël. ci monsieur euh, Bathily monsieur li mu ñu respecté ko. surtout la communication aussi mu jàll ci pap yi ñi ñi mën a kii di wax président aussi bind nañ ko ñaari yoon bind nañ euh, euh, PM aussi pour mu recevoir ñu au